luktil la xam ba di ko def ci teeyam gaynde fa wuute mbaa mu def ab reeram te doomi gaynde bay wu koy siyaare na yëglu ndax ndékki na mbaa lum lii tax ma yëglu del si fab xaliima sëpp ci daa ji way fa waaja yeema seex mustapha mu seex ma sàmma mbakke laa bëgg way ca asakay dëkke gor la su maandu maam jemoo di maaram jàmbar ji kenn jógul ne ma dig te waaye juróom wa ma Massamba Mbacké kenn di ko laaj ci kër gi naa mu dëkkee di caat mu siiw fa taaw ya teew la jiitu mooy baay ba ma sàmba kiir ko wuutu wetuk ndeyam jamaam ja ay sërif lañ ko topp càllaleem yonen ca ngay dañ maam soxna aminta amar mu baax ma di ndey ja yàlla na buur defal ko raxma soxna ami du doomi mam makaltum moom muudu soxna mbaaco moo di buntam ndeyam ja day foore wu siiw ci maasam man alxuraan bind ko njëkkum néegam cheikhul xadima ko fa boon jébbal ko rakam ja seex sàmba buur barkeel ko mu am fa seexu Moustapha mu baax mi jiita njaboot gi ñëpp a ngi fi yow mi dellu ca teg rakam ja say xumaam moor mbàkke masamba seeni mbir dañ koo jóor 36 la feeñ sëriñ masamba sant ca fop turam wa jox yonen ba ci at yu néew la alquran jëm mokku xam-xam ba it teela na jëm ci sàkku mu jaar fa ñëpp jaar ci sàkku xam-xam tër bi yoon wi yaa yaaka am ndam dem na fa gànnaar wayaloon am jàngam yàgg fa lool dellu fee sa xam-xam seex Moustapha Alxaaji Fadlu moo ko tërbi yu fop ay ngërëmam dollil ko tàggat xolam ci naafila ka wird booleeg liggéey ba mbàkke yaa ko tedd man alxuraan saxoo durus kaamil ba ak xasiday sëriñub ma Masamba fop alxuraan muy wéttalam xasiida yi sëriñ ba baay bu baax ba moo ca daa bay nangoo liggéey te nangu lool ak jaamu yàlla te sax ci sunna si nu taamu ñépp ne waaw ngir fi nga jaar ba yegg di seex masamba tax na ñépp tër si jikkoy na bii nga teel a jàng roy ko ba am ca lool waaju la neex nga may ko mu'min la muslim la ku mus mu seeti seex mustapha masamba daal koy seeti aw doxinam fa kër sëriñ masamba wax la ju néew te jëf jërëy fi bamba seex ibra faal doxin wa rek la topp xolam ba seex rek la sopp Cheikh Moustapha masul la den di sàkku ndamal sëriñ ba kii ndigalla la jekku ñeme na lool te xër ci ay xaddiya Cheikh Moustapha fàlloo ko fob tarbiya jàmbaara tax sëñ fàllu naa ko gaynde muy waaju xër te am fulaaki fayda sëñ Abdoulaat na woon na lool pëste fam nangoo liggéey gani meloon ci toolam kuy kilifaam fa kër sëriñ Masamba def na sa ndaw di xool ca kay baayam ba sëriñ Moodu May moo njëkk a wuutu baayam yàggu ca waaye xam na moo di waayam Cheikh Mahmadan yow a defoon baay faalam foofu la xasaay ga jiitu mel nib taawam saadix bu mag Cheikh Mahmadan Masamba lu mu mas a tab gis la ngay buntam ba sëñ Moodu Faati Xari Mbàkke sedd na la ngërëm ngir ne mbégam nga jënd te diggam ak sëñ Abdu Baaxe Mbàkke kenn réerewul yaayab la yoonu Màkka Cheikh Saalihoom sëriñ Masamba surgaam yow a defoon Cheikh Moustapha gëm daam te soxna yi def doomi seex masamba xam nañ sa xër fa kër dono yonnen ba moo warlu woon dund ba doomi baayam ya di jigéen ngir dabu bég ci waayam ku nekk sa ñoom dundub atam lay génne yónnee ko yaa di waaju dégg diine tudde na doom sangam yu baax yam bokkal Cheikh Moustapha kii taalubeem nga yombul ñim yóbbu màkka booba liste lim ko ci ab jataay ku ami yitte dog ko ñim yóbbu màkka booba liste lim ko ci ab jataay ku ami yitte dog ko rafet na jikko fonk nit ku dëggu mësula jeng péye doo fa sëgg nangoo liggéey mësula gis ne barke sàq la moom teena mu xëy di jekki yeggoon na naa sotti këriñ di peese ci marché bi taxul ma sant siise mënula tee sëriñ ma sàmba mbàkke di sama baay ba yaa ko dëkke Cheikh Moustapha ma la foo ko gis day dimbalay nijaayam ngir tedd ngaam la mas di boote waayam seex Moustapha Massamba boo dib yaaram te ñii mu yar ci taalubem jàngal leen lim la bu takk ko ci gis ràññee leen ñii koo ci xam ni mënuloo sa bopp moo lay wutal yoon naa la nañ ca topp wutal la xëy mbaate mu jox la visa sampal la kër ngay gis euro ki CFA jafe na lool ku mel ni moom ci waayam mat ngab sëriñ yàggan ci ndaw nijaayam jam-jam amoo Cheikh Moustapha kuy taasal tegg la ngir ne dar bi yaa ko weexal ku ne nu ngir doxin wu sensé Cheikh doo gis ku koy engagé kóllëre it na mu ko fonke tax na foo ko nuyoo nekki jikkoom ya mat na daarul karim jumaaje moo ca jiitu téeméeri million la ca def yu topp teg ca ne fondement bi nañ ko doore fer ak ciment bi ton ya ma nga fa jóore fa say xusaalihu tegoon saawaa ji kawe na lool cay ña mu def alxaaji xel koom jëfam ak taxawaay bu siiw ba jiite nu dox sunu digg ak musiba te diggam ak alxaaji baara fallu cofeel gu tar baay ba moo ko yarlu lu xalifaab seexul xadim santaane fa seex masamba bu ñëwee mu daane rafet nga jëm mu taaru jëf te sell biir ko miin ne mbaax nga feese dell bokkuk deret ñay wëllëree ki baayam na mu ko sambe Mustapha di yaram am fa pencum maam Cerno Faati Moustapha di kàngam Cheikh Moustapha du waa jubuur di vancé ngir seeni baay regal nga leen ci maase bu rakki dak jiwaay xamul baadoo la itte la xam ku ñëw mu jox la loola li mu liggéey ci jàkka fii ci réew mi ak yañu door mu yeggaleel ko réew mi